di waxaat rek ginnaaw benn sent yàlla julli si yonent bi sant sama ñaar ñaari waajur bu baax a baax di sant waa yi di sant sama am di jàmm yi ñi nga xam ne nii wax dëgg lu ma nekk ñoom si su ma jógee ñu jóg mën naa ne daal lu ma nekk daal si làmb rek ñoom si daal di ma jàppale dëgg waaw. daaw saison bi ñaata combat nga def. daaw benn combat la def. am tamit an mag Zal si am Bulldozer. am tamit. waaw kon da nga teg li ñaari def. waaw waaw mu nekkoon loo xam ne nii lu ñu na naxare la wax dëgg yàlla tey ñu xamoon ñu fël la yàlla may ñu ay victoire yu neex ñuy téye làmba ji dem daal yàlla dañu may ay victoire yu neex ñu ñëw ubbee ñaari defet yoo xam ne nii kenn xamul daal mais yoon la ñu taxaw tëkki la xoolaat di nekk suñu ginnaaw defaraat bu baax a baax ndax am na am na ñoo xam ne nii bu ñu demee ba daan si làmba war ngaa moo toogal xool sa boppa waaw xoolaat sa ginnaaw gën a xool yi ngay def bu baax a baax waaw. Hmm. Hmm. bi ngay bëri Bulldozer moo nekkoon sa ñaata combat. Bulldozer moo nekkoon sama huitième combat. huitième combat léegi sama septième combat. mooy sa. waaw neuf victoire. sept victoire deux hmm. Hmm. trois défaites trois waaw. trois la daan. Thiel bi ma daan Bulldozer. Thiel waaw ak Bulldozer. ak ki mu jëbëral nii. waaw. ñoom ñett ñooñu ñoo la daan waaw. Hmm. yow kan kan nga daan. man daan naa Boña 2. daan Tidiane Faye numéro daan Mbartin. daan Bébé Bismi. daan Nokia. ñeeñ dama leen fàtte de. waaw. dafa am lu suñu mbokk internet yu bari bari seetlu ci sa combat yaag Bulldozer keroog bi nga dugg si stade. ñëw gis nañ cabaret bi gis taay bi macha allah liggéey nga mais dañoo gis ni Buldozer daf la gën a xajam sa takkaay bariwut da ngaa raflay butéel indiwoo butéel indiwoo takkaay indiwoo dara mel ni koo xamante ni dafa yombaloon combat bi. waaw mais xam nga rek làmbaw ak ni nga koy paree rek. combat bi fim mu ñaagoon la. tey am na yu bare bëree bëri yoo xam ne nii dañ kaa manqué woon si combat bi mais daal sant yàlla defet moo ñëwoon mais li nga wax nii incha allah rabi nañ gën a veew bu baax a baax baax ndax daal ñëw di gën a xajam mais bii gis nañ demee mais loolu lépp ay leçon la làmb am na loo xam ne ni boo si jógee boo ñëwaat toog dangay ngay am beneen jàngat daal waaw làmb ji am na si jàngat bu baax a baax a baax mais incha allah rabbi dañuy waxaat gars yi rek bu ñëwaatee waaw ndax caare danañ amal ay bor te dañ ko war a fay te incha allah rabbi dinañ ko fay am naa gëm-gëm bi te lu ma gëm na te lu nekk ci man la te gëm naa naa def waaw daan ñu jaaxaluñu. Bulldozer bi ngay jël Bulldozer xam nga ko. Bulldozer xam naa man ñi ma bëreel ñoo gën a daan ñi ma daan man ñi ma daan nii war ñu maa daan billaahi wallaahi war ñu maa daan te du ma nangu boo gisee saa saa damay wax sax sama xol di xaw a métti ndax ñi ma daan nii man gëm na ni ma leen man ma nekk làmb moo garaaw mais bu ñu wàcce woon léegi man xam naa ni ma leen man foofu ndax man combat bi ba ma fekkoon suñu bërëbu liggéeykaay entraînement mm. di nga xam ne ñii woo ñu maa daan li may wax ni waa Thiaré xam nañ ko ñii mu àndal xam nañ ko waaw mais nag làmb moom boo waree daanu noo daf ngay doon mm. mais incha allah rabbi dañ si bàyyi xel bu baax bu ñëwaatee waaw yàlla na leeral lépp incha allah mm. waaw. nga jugee tegle ko metti na ci mbër ak encadrement maam ak ñi nga xamante ne ñoo topp sa ginnaaw torop waaw métti na moom nekkatuñu waxati ndax wax dëgg du ma daanoo guddi googu métti na torop si man torop waaw nelaw ma ba sama set wax dëgg tamit di xalaat ñi sonn si man ñi xam ne nii su ma amee combat dañuy bàyyi seen yitte yëpp ngir man ngir ma am dam rek kon nga àgg daanu ay jël yoo xam ne nii du yoon waruñu ma daanu jël yooyu ndax ñi may daan nii man gëm na ne man man mais làmba dañ ne làmb la xam nga rek nga doy waat daal waaw mais ñoo ngi ci bàyyi xel bu baax bu ñëwaatee waaw nañ def la tout pour am dam waaw nga yaakaar moo koy faj. li koy faj lenn la lëlu toog xool sa ginnaaw entraînement entraînement métti te gëm naa ne incha allah bi dinaa ko def te am gam gëm-gëm bi man dinaa ko def waaw entraînement mooy moo may andiwaat ak xoolal sama ginnaaw bu baax a baax a baax du naan def benn def ko fukk incha allah rabi waaw. kon saison bi pare nga pour bëriwaat. ñaar wala benn wala ñett. waaye mën na la bëri wax sa ñett. lu ne mën na ci am mën na la bëri wax sa ñett. billaahi waaw ndax danoo war a damaa bokk si mbir yi xam ne nii danañu dégg si làmba dama see bokk ñaari gàllankoor yi laa am rek mais wax dëgg donc ay xelal nag mais yàlla ton teel naa yëkk suñu tur si làmba waaw ñu sant yàlla wér nag nga jëm fi mu toll nii. af la jëm samay morom rek gaa fi. comme ñan. comme ni tey Tapha Mbeur moom noonu bëri ma ak moom. Tapha Mbeur ci defet nga jógee de te Tapha Mbeur daa am ndam. ndam loo xam ne day savouré ay victoire am fi mu toll nii moo Alioune Seye Junior. non non loolu dara Tapha Mbeur ci defet la jógee woon moom Alioune Seye 2 jël ko comme noonu la rek. waaw mais samay moroom a ngi fi man damaa bëri ñu ne ma làmb ji même Alioune Seye 2 moom suñu taxaw. Alioune Seye daan Tapha Mbeur ñu nangu victoire bi ci moom. Bulldozer bul toog fii déggal ma naan Bulldozer brise de mer bul toog fii say mbokk wër la ngay laaj ñooñu ñooñu diis nañ te ci ñaari defet nga jóg. man li may nekk moo gën a diis ñooñu li a diis ñooñu foofu te wax ji matukaat tey bu taxawoon nga xam ne daa fu ma teg sama bët ñooñu mën ñu ma ñooñu ay mag lañ te ñu ay xelam voilà. Uh-huh. bu dul Tapha Mbeur du Alioune Sèye Junior koo bëgg a. waaw fekk moroom fi làmba bëri nay mbër. waaw bëri nay mbër même ambulance bu kees bu ñëwee ambulance bu kees bu ngeen nañ bëre billaahi ñun ay xaalan de. li ngay li ngay laaj moom Brise de Mer dafa dafa diis dafa diis trop ci làmb ñooñu duñu diis ñooñu boo leen gisee nii te yow dafa am ci loo jóge ah dina metti de. waaw man comme tey da nga ne man daal su ma jógee mais man li ma jóge nii pour man du defet ndax man ñi ma daan nii man mayeen man donc jikkee xale am na ay naagu am na ba tax ma am defet yi mais ñii mayeen man. mais sa combat xoo mujj woo bëriwoo tuñ la de kenn xàmmeewu la ci làmb ci keroog. barki Mouhamed li ma entraînement ak li ma amoon décision bi ma demee làmb ji def ma si dara loolu man ñi toog la gën a jaaxal mais dina làmb làmb moom boo war ñàkk boo àggee da ngay waaye di. loo bëgg a wax mystique da laa jàpp ci combat bi. non du mystique sax war a daanu rek ñooñu mën ñu maa jàpp si mystique war a daanu rek moo ma andi ma daanu loolu kese la waaw mais ñooñu du ko ay cadre mystique yi non non yëpp ñoo kon combat bi mystique jàpp la ci. non non mystique jàpp ma non non. <laughs> liw nga de jékki-jékki naa gis la présentation bi ngay kat kat yi naan nii sa gémmiñ gi seddaay boobu stade bi sedd na. stade bi sedd na man dama ragal seddaay maa mel noonu. waaw mais comme làmbaar rek dama waroon ñàkk ñàkk naa waaw li nekk sama wax ji xoolaat li nekk sama ginnaaw dem defar waat ñëwaat ak force incha allah rabbi waaw ndax caara yi am na fu ma teg te burul dara daa am ñu sonn si man. billaahi wallaahi su ma amee combat ñii ngi gis nii ñu toog dootuñu nelaw. ku dégg bëccëg nekk si làmba ji ngir renk rek ma am dam kon su ma ñëwee am defet war na maa toogaat xool sama bopp bu baax ndax am na ñoo xam ne bu lay daan mooy ma la waxoon rek war ngaa mën a gëstuwaat bu baax a baax li def waaw. géej fi mu toll nii ana say mag ana ñoom ku mel ne Baye Mandione Issa Pouye euh, Ahmed Dem ñooñu noonu ana ñu ci làmb ji ñu leen de. waa tey ku ma na Issa Pouye xëy na daam leen tey woon rek Xarim Ndiaye de maa ngi nuyu passage mm-hmm. nuyu Issa Pouye waaw ñoom tamit dañuy sonn si man ay. Ameth Deme rërëg waa gars yi dañuy sonn si man daal ak mbëri caara yëpp waaw dañuy sonn si man tey ku ma ni daa génn sax dañ ko fekkoon ku sës waaw waaw moom tamit day sonn si man wax dëgg sama gars yi ñëpp ñëpp daal déggoo ñun caara yi mën naa ne ay xelan de mais am na benn doole ñu yàlla may loo xam ne nii donc renk yu nekk ay xale mais bu ñu jógee ñoom ñu jóg kon loolu dañ si sant a wér a wér waaw may sant champion yi ma lim nii bu baax a baax dañuy sonn si man su amee combat dootul nelaw billaahi wallaahi combat yi passé nii non damaa toog fi jooy jooy métti ndax daa amoon lu nekk sama ginnaaw loo xam ne nii waaw mooy loolu daal mais loolu jàll na jàll na mais incha allah rabi dina leen ko fay. ci defet ñaar jóge ñaari defet jar naa jooy teg la ñaari defet. waaw ndax xam nga tey dafa nekk loo xam ne nii. làmb daan dem la daanu xaar. waaw lu leer dafa nekk loo xam ne nii nekkul lu ma xamee. waaw caare yi su ma mos naa jug rek ñoom dañuy jug topp ma ndax xam na man làmb du ma kafe du ma ko rewe du ma si kaf du ma ci ree billaahi wallaahi mais tamit li ñuy wax rek defarwaat moom moo war waaw defarwaat moom moo war depuis mbapat ba tey saa bu ñu dem si làmb fulla ak fayda lay yóbbu ba dem yàlla may man tam ma ñëwaat toog waaw béykat samay gars mais kon tamit fu mu ne nii dañuy rëkkale waat rek waat waaw xam ne ay xale lan ñàkkul dara xëy na sunu tur moo teel a saaw si làmb yi mais ay booy yu ndaw lan wax dëgg waa ndax mi ngi dugg si làmb ñu bare bëri fii nee na booy dañoo teel a bëree booy yi dañoo teel a yëg seen boppa mais booba ñun xam na nekk si ñun ay gune lébu lan bëre nekkul luñ jaaxal si àddina moom man mënu maa jaaxal si àddina lenn nekk mooy sama wareef fi mu nekk nii dem yokk doole yokk doole bu baax a baax ndax bëri man naa ko pare waaw loolu mooy sama objectif fi ne nii. macha allah fa tabaarakalla ni nga mel nii kon amoo doole. non amul doole doy. du doy surtout. mën naa ne tey bu ñu liggéey rek am doole ndax benn bi jege nañu ay borom ñoo si booru géej gi suuf si jege nañu benn bi jege nañu waaw kon doole nekkul lu jaaxal bu ñu liggéeyee noonu dañuy am doole incha allah waa noo gisee wasaare làmb wasaare waaw di kontaan si yéen rek yéen moom wax dëgg gis nañ liggéey bi bi ngeen def ci réew mi kontaan si yéen rek sànq Baye Mandiaye bi ma ma dara lu ko am am si contentement wax sama gars yi tamit ñu bëgg torop waaw di kontaan si yéen waaw di ñaan xam nga seen télé bi dama nekk télé yi euh, raw si télé yi incha allah waaw. wala ñaan gën nañoo a ñëw waaye heure bi dañoo réer. di nekk yoon bi yaa ma gën a xam. wala yoon waaw mais xam nga rek liggéey moom boo si nekkee saa saa man la ñàkk yi mel ni di am embêtement yi saa xam nga rek xarxate ak oto yi waaw yaa ma gën a xam mais man ngi jégalu baax a baax si dérangement bi nii xam nga waaw di leen di kontaan daal wax dëgg waaw. bàyyi nga tàggoo rek. waaw comme tamit di waxaat rek santat waa Thiaré bu wér a wér a wér a wér waaw ne combat bi gis naa sama gars yi nañ si sonné bu baax a baax a baax tey Baye Ma Ndiaye mi waral lii man ngi koy bu wér a wér a wér mooy sunu président écurie maa ngi koy sant wér di sant sama gars yi yëpp boo it ma aw ma seen fay ñi nga gis ñi billaahi maa amee combat dañ naan ma biris bul demee di géej toogal ñooñu xale di la jox nangu ma dara waaw tey suñu entraîneur ban maa sant bu baax a baax biram koddu ay xalafay taala gars yi dañuy sonn si man MC billaahi wallaahi gars yooyu ngay gis noonu su ma amee combat ñoom dañuy bàyyi fële seen jabar bàyyi seen liggéey bàyyi seen yitte yu bari ngir rek man kon tey mënuma dara demaat yokki doole ngir feedeel ñoom coono boobu ñu daj waaw loolu kese la waaw di sant waa Thiaré bu baax a baax di leen wax ni seen doom Brise de Mer mu ni bége bu baax di ma masaw si combat bi ñu jógee nii nii nii métti nañu nag neexul kenn wax dëgg te Thiaré bi may jóg ñëpp ndam leen ma yéene woon amul kenn ku ma yéene defet billaahi wallaahi mais ñu dem tey lii am neexul kenn mais dañuy sant yàlla yàlla moo ñu daan may ñuy béggee tey moo ñu xañ mais incha allah rabi di leen joxaat rek am nañ bor fay ñu ko amaat bor fay ñu ko dañ ñaan yàlla yi ñëw nii incha allah rabbi mu leer nañ te am nañ gëm-gëm bi te gëm nañ day leer incha allah waaw xam naa li koy maye xam naa li koy joxe te dinañ ko def daan bëri nekkul luñ jaaxal waaw. jaajëf Brise de Mer. waaw bu baax a baax di sant sama waa Ikir nag. waa Ikir caara yi maa ngi li may waxaat rek santaat sama gars yi may àndal ñoom du ma leen sax gërëm ndax ñoo bokk lépp mais damay leen ñaax rek waaw ñu defarwaat rek ñëpp ñu jàppaat def lan daan def incha allah rabbi bu ñu jógaatee dinañ toogaat fii mais lii waxoon naa la te incha allah rabbi day amaat dañuy ñëwaat fii waaw loolu kese la di bëgg si yéen nag. jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la Brise de Mer numéro de wax ñu fekk ko fii ci caara yi mu toog ak ay mbokkam ay xaritam ay am di jàmm mbër noonu la dafay am gétt mbër moom boo amee gétt rek macha allah da ngay neex a jàppale neex a entraîner neex a àndal bëri na ñaari komba yàlla def mu am ci defet am na feneen fu mu jëm ci làmb mbokk yi kon nañ leen ko teewlu. xoolaat prochain combat Brise de Mer numéro 2 nan lay doxalee mbokki ñu leen di tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqaliko ba ëllëg incha allah ci wasaare làmb ak beneen daanaan jërëjëf sëñ Bass.